waaw yàlla mu ne du ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fontoo amaye tttë daa gis nga Dakar yëpp xaal la fi nekk nii macha allah yàllaay karim na tax fi nekk moo lay wax xaala Muusa neen waaw atastabdiluuna ndax da ngeen di weccoo àll si loo xam ne huwa moom addunaa moo gën a so billa sii ci loo xam ne huwa ayil moo gën yéen ay ñambee ki lekk ñàkk solo yooyu amul nga leew mooy gën a leb ah fi ne am na doomu aadama yu mu dal lii lu li fast food fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak ñu xaral la buur mi defal la ci ngay màtt jaar ci mbedd mi sa gàllaaj toj nga siis ah sa wër sa damm lekk ci mbedd mi maa la ko wax te gaa yi lu ne lañ miin léegi ñu ko ci gën a miin nag mooy jànq ji jànq ju man bi xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkal moo tax yonent bi ne ne boo amee jànq ba mat bis boo fanaan moom yaa ngi gën perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du root du passé nga jël mbi ci ko di fay quinze mille foo jëm foo te nga wóor moo xuj mu jox la deux mille cinq cent nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàmm ngeen xam ñu ngi bëgg alku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey ngaal doo fay si kaab mukk ba ma dal waaw góor gi daa mujj ne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa lan mu ne ah, kat bool bi maa ngi si desitul ñu ne ko non quoi dañuy sport mu ne ba ma gisee di kenn sol daal di génn kër gi waaw lekk yu sew siwaan yooyu moom la banu Israël pour posé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañu bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal cigarette bi nag këcc kii bi màtt fii ñoddi si tëtët jëm ca dibi ba lekkalu ah déedéet boo amee la lekk da ñëw ci kër gi ñëpp ah bokk ak ñëpp saaba génn ci mbedd mi di xaar ñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgg kuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis <laughs> Moussa ne leen da ngeen bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waaw ma yàq Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tool ñàmbi léegi nu ñu def ihbitu misran dem leen première coono daal tàmbale ñëw xaat ah dëkk jëppal dëkk ci étage bëgg jëmmal ñaan moom kay yëbbitoo moom kay li ngay man mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gasee nag yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas ah day na kéemaan kon nag bu ngeen bëggee ñaan gi ihbitu wàcc leen misran ca àll fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj waaw wa duribat ñu sadd alayhim ci seen kaw nag azillatu toroxtaane tàmbali lu ñoo torox di lekk lekk ko torox wal maskanatu ak ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaale mer minallaahi mu tukkee ca yàlla wallaay ndes zalika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruuna di weddi bi ayaatillaahi ci ay yàlla yi wa yaqtuluuna nabiyiina bi rey yonent yi bi xayril xaq ci lu dul dëgg ci lu dul dëgg banu Israayil danañ xëy rek rey fanweeri yonent benn bis dong bi xayril xaq ci lu dul dëgg zaalika li waral loolu nag bi maa asaw ci li ñu mooy yàlla wa te it kaanu yaatu doon dañoo nekkoon di jalgate ñoom banu Israel inna allazina ñi nga xam amanoo gëm nañ yàlla wallazina ak ñi nga xam ne haadoo nekk nañu yahud wan nasaara ak ñi nekk nasaraan chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi duñu dara ñoom ay majus lañ man amana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil axir gëm àllaaxira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu lëkkum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alim du ñu ragal dara wala hum yaxzanoon te du ñu tiit dara yàlla ñu ci yàlla boole te nee na wa is fàttalikul axas naa ba fàttaliku leen ngeen banu Israël keroog ba nga xamee ne axas naa miitaaxakum jàppoon nañ seen kóllëre ngeen lànk bañ koo def wa rafanaa fawqakum ñu yëkkati ba mu tiim leen ak tuura doj wa ne leen xusu ma aataynaakum jëfe leen liñ leen digal jëfe leen tawraat waskuru ma fiihi te ngeen nafar li ci nekk laalakum tattaqoon ndax ngeen am ak ragal yàlla banu Israël dañoo bañu na jëfe tawraat di rek yàlla jékki-jékki rek déqati daj wu tal ndañu ngor mu tiim leen yàlla naa ah, jëfe tawraat mbaa dee daj wi commencé ruusal gaa yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek ne ñoxeet daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musiciens yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mees fàqmaan yi bàyyi leen fàq PMI aset daana leen kees ki PMI ñu lànk rek ba ñuy commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la ma fàqamaa ni ku la naan wat ma takk seen i jaar tekk seen i jaar caq ñu ñu lëttuwaat fàqamaa ni sulu waaw tëkkaat seen i caq yàlla mu ne ma jàppaat leen xam naa comme man naay yàlla du ma defaat ñi ma defoon parce que sama ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoon yàlla du yëkkatiwaat rajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoon noonu mu bàyyi rajo fa mu d'accord moo tax mu ne su ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo rajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min ba'di salaf ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falawlaa fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax aleykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk ci ñuy perte ndax dañoo laa def seen koo tépp ngeen al ko wala alimtum yéen ngi nii xam ngeen yéen banu israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen ba rëbb jën fi sabti ca samedi jëf xam ngeen leen xam ngeen fami ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di napp jën te ma aaye woon nëpp jën xam ngeen leen fa xul naa lahum ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñépp xaasiin ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër yàlla def na banu Israël bu leen liggéey samedi bu leen liggéey samedi ñu ne ko liggéey dëgg mu baax na samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca de ca géej ga gas ay pax bu duus yu sànnee jën yi ba delluwaat jën ya des ñu ñëw jël iblis na leen loolu lool jaru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kaa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo yi fees naka ñu wàcc ci tefes gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi na yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppali jëppali de village 24 res xoolal su ma àggee fi soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko mu ne lii ngeen teg seen bët te lii du lu ñuy nekk lii dafa dëggu koonu xirada ñëpp nekk ay golo xaasi yi ku ñëw sa kër rek sa soxna ku mu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc seen yàlla mu ne lii yéen a teg seen bët banu Israël wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa ja'alnaaha ñu def ko nakaalan li maa bayna yadayha la nekk ca kanamam wa maa xalfaha ak la ca ginnaawam wa maw'izatan lil muttaqin li maa bayna yadayha képp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa maa xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa maw'izatan lil muttaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu tax fu nekk nii banu Israël duutu ñu la gisaan bi mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue mënuloo ko indi rek banu saa duñ liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñ liggéey samedi waaw nasaraan duñ liggéey dimanche banu saa duñ liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue waaw ñun ñu nekk fi ndeysaan di yalwaan di yalwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga patam patami ci bëgg cee sangu julli ci jumaa nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fii doy na waar tabarakàlla wayis xaala wayis fàttalikul jamono ba nga xamee ne xaala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ñi mu ne leen inna allaha yàlla ya'murukum mi ngi leen di digal an tasbahu baqara ngeen rendi wenn ibn abi xaatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu israil dafa jaasiroon amul doom am alal mu fekk ko def ko doom léegi su dee ajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi nga xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wàññi affaire yi bari lool ba yëm ko léeg-léeg mu ne ko waaw paa doo ma may deux mille francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis nga ca kanam xëy benn bis rek neppa bi deq reen bi tëdd ci millions yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi boo xujja mu wàcc ko fa ñu xëy nag wal fajiri ñëw siddu ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muur xujja rey na ko muur xujja rey na ko muur xujja ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yépp ni Mor Khoudia ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul fee lañ ko fekk bi coow li bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xalwa daal di génn yàlla seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nag wa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dekki dana wax ku ko rey àtte bi jeex <laughs> bu ñoo doxalee àtte yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah <laughs> kon day yëpp leer tabarkalla ah xaalu ñu ne ko atattaxisuna husuwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye <laughs> ni gisaane kat yi def réer le cinquante mille di ko seetlu lu ne a joxeel cinq mille muy cinquante cinq mille te cinquante cinquante mille di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la cinq mille muy cinquante cinq mille moo gën a weexal rek mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy reyloo atattaxizunaa huzuwa qaala mu ne leen auzu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al ci ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo bi mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaane nga bañ caa loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal la ñuy wax ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nangul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku yàlla tëral ko am sëriñ mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko kon baax na xanaa ñu jéem a rey rek comme ñàkk nañ waaye des na benn affaire udu lana ñaanal ñu sa borom yu bayyin lana mu leerlal ñu maa hiya nag wu wan la muy benn jëf ñaari jëfam-jëf mooy bi yàlla waxee antas boobu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi deseeru nga naan ma ban fruit <laughs> bu cher laa lay wax moom laa ne koy jënd ab xaal andi deux cent cinquante waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo raisin nga ne ah doo ñoom tam bi mu ne en <laughs> tas boobu baqara jàpp benn rek waaye ñu ne ko ud'u lana rabbaka yubayyin lana maa fi qaala mu ne innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faidun màggatut wala bikurun dug jànqit awaanun dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen rendi nagu màggat bu leen rendi nagu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal màggatut du gone yi fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon lim leen digal xaalu ñu ne ko ko def sax waaye des na des na ah udoo lanaa woo xalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lanaa ngir mu leeral ñu maa lawnuhaa ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ah <laughs> léegi ñuy seen jikko yi rek mu ne leen Musa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne safraa u dafa mboq nag ba ne curr mboq curr law nu haa couleur bi sax day tasurru day kontaan loo an naas yi ñu koy xool ñu ne eh, eh, nag wu jaune affaire bi gën naa jaxasoo ah <laughs> nag wu jaune man de gis naa wu weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nag wu vert mbaa mu jaune man li ma gis bëriwul ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoo jafeel yàlla jafeel xaaral ñu ne ko waaw des na udu lana woo xalaat ñu rabbaka sa borom yu bayyin la naa ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag wi kon wan la inna al baqara nag wi daal tashaabaa alayna dafa jaxasoo ñun dafa niroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allah bu neexee yàlla soo ko waxee tey la muxtadoon danañ jubal coow ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tayiwut benn question bi rek réponse bi rek benn bi xaala mu ne leen inna wa sama borom yaqulu mi ngi naan inna haa nag bi ngeen di laaj baqaratun la woo xam ne laata loolul mokkut laata loolul mokkut mokkut mooy nag bi kenn tàggatu ko dafa soxla day mëkki dafa rale laata loolu mukkul bay mën a ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruuj bu ko takk oh dana la gaañ gaañ la machine wala tasqil arta munta arrosé tool mukkul kenn du ko takk ci baax muy génn ndox musallamatun dafa sa wécc benn couleur la yor laa shiyata fiha amul tupp tupp benn melo la xaaloo ñu ne ko al aana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daal di jóg wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa maa kaadu na tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa seer lool waaw dafa am benn xale teel a ñàkk baayam nekk yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay ja teg loxoom ca boppam ne ko doom gërëm naa la te am naa sa ngërëm mu bàyyi doom genn benn alal ji rek laay am mu nag muy nag wi maa ngi lay ñaanal yàlla na sa nag wi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu ba yow nagam yàlla di créer benn tension pour na wa barkeel parce que yàlla foog ku bëgg ku ku ne daa am lu yàlla y pour nga <laughs> waaw benn waaye dafa otam ba jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am tulie yow boo xëyee def say gànnaaj bismillahi rahmani rahim suba bismillahi mujjuraha wa mursiha pour du accident kek waa ji moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waay accident ba mu noo dentil ko il faut nga accidenté pour mu lekk nga door dana ko ci benn barab kuux daa ne xoo waa ji ne alhamdulilah ngay ndewatit mu fartiré la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñu yàlla may wér gu ah bu ñëpp wéree bu lu fa docteur yi jëm kon duñu lekk di ok yàlla kër yi ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen su fekkee ñëpp seen poste lekk waaye day gas bàmmeel foog am ko dee pour mu kii ma ne mos dara bu ñu suulee waa ji ba noppi génn benn mbax na daa ne loo waaye man ci gënoon gas bàmmeel bi <laughs> fukk yeeg ñaar fukk yi dugg moo tax daaw jéeg benn waay da ko faa fekk ne ko yow yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kañ dem yéega jot ci kër gu jekk ku baax ba jox ko caabi yi ne ko yow mi gasal gaa yi kër war nga am kër jox ko benn waaw yàlla lu lay def fokk mu kenn benn affaire pour amala ci benn affaire moo tax fii tam mu kereel waa xam nga la mën na ne Moussa laal bu dekki mun ko di ñëw rek daan ko laal rek waaye ñoo kenn ne asalaamaaleykum mbokk yi waaye yàlla du def noonu day créer benn affaire pour xale bi amee ci affaire moo tax bu mu bëggee yonent bi am weccat dafa wàcc génn aaya kuy ku nuyootu yonent bi na joxe addiya waaw yaa ayyuhallazina aamanu ñu ne ko ha mu ne isa naajaytum rasula ku nuyoo ci yonent bi fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku ko nuyoo di joxe addiya ah xoolal Dakar fi ne bu ku mu nuyu jox ma addiya mel ni comme Sëñ Saaliw c'est bon day eh, baax de yonent bi daal am kees nun la yàlla defee mbir yi moo tax fii itam mu kéré fi lu am solo mu ne ko fasabahu ah, ñu rendi ko. bi ñu ñëwee nag ci xale bi gis nag yi moom dong moo ko fi am ñu ne ko asalaamaaleykum ñun day Moussa dafa waxoon ñu wër benn nag te sa fi gis xale bi nag bawal bawal la wala boog jikkoy bawal bawal yow mu ne noonu nag bu jaayu bawal bawal noonu nag bu jaayu fépp giri bi la bëgg a àgg seet ah. allahu akbar ñu ko non xam nga di mocc di mocc ba mu ne daal ko jaay mooy bu ngeen rendee nag wi man moo nekkoon sama wéetal damay wéet léegi waaye ren koy lal der bi ngeen sol ko ba mu fees loolu laa koy jaayee. tax yàlla ne wala yàlla ne wa maa kaada yaf'aluun tuuti kon duñ ko mën tuuti kon duñ ko mën waaye nag fi fi fi information bi toll fi projet bi toll ci àtte jaral na leen ko ñu rendi nag wa fees ko tàllal der ba jël ko ba mu fees ak or jox xale bi daal di indil nag wi Moussa mu tagg ca suuf wam dagg teg ko waaja waaja ne ñoo xeet taxaw daal ne bonjour muy xool mbooloo mi xool rek ba gis waa ji ne ma rek kii ma rek daal di nettali fi moom sama jarbaan la muy nii maa ngi yaay mbokk ndey ak baay oo ma ma adopté mu ñàkk ngox sama alal ci ma doon ñaan bañ ko ko may moo tax mu rendi ma wasalaam daal di moom mu ñàkkul rek gaa yi daal ne waaja nii moom it dagg baat ba fa la lépp doxee seetetetet xis booboo tax nag yàlla ñu tuddee saar bi baqara nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fàttalikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen nafsan bakkan fa daaratum ngeen di jiñante fii xaaj ka ko def wallaahu te yàlla na moom maa kuntum taktumuna la ngeen doon nëbb fa xul naa ñu daan ne idri boobu dóor leen ko moom néew bi di baax di xaaj ci tuuti ci nag wi ñu dóor ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llaahu la yàlla y dekkalee almawta ñi dee yàlla mu ne nii ma dekkalee waa ji ba wax ñu laa di dekkale yéen ba ngeen wax wa yurikum mu wan leen aayaatihi ay aayaam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiloon ngeen jëfandikoo seen xel banu Israel fekk lii yàlla mu ne sama ginnaaw ga nag xasat wow komm xuloobukum seen xol yi yéen yahudi ñu mbaxadi saale ko ginnaaw loolu foofu yëpp mujj na seen xol yi kal xijaara mel ñu doj xolu banu Israel